mbokki Sénégal mbokki amateur yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sago muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéenee sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam na nañu ne saa yu mbéyeg lu mu feggoo ak moomoo ngom làmb jooju faw mu wàcc faw mu alaa daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye Ndour ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaw Sine ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa club Boucar Ndour moo leen di woo di woo waa làmb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 millions de francs CFA. jërë ngeen jëf mbokk internet di jàkkaarloowaat ak ñun ci Lutte TV point com ñu leen nuyuwaat bu baax baax di leen ziare ki ñu toogal nag yaakaar naa ne miin ngeen ko bu baax a baax muy Santa Gningue tey ñu fas yéene waxtaanaat ak moom rek comme niñ ko tàmm defee ak moom ay njariñ di ci génn waxtaan bu sell di ci génn aman nañu mbégte kontaan ba ñu jàkkaarloo ak yow fii ci Almahdi di restaurant fast food bu nga xamante ne yaakaar naa ne bu mucc ayib la. yaakaar naa après di nga ci gën a ñëw sax parce que comme yaa ma ko gën a maîtriser di ci gën a ñëw mais nag ni ma ko gis ma xam naa ne mucc na ayib torop torop mais am nañu mbégte war a waxtaan ak yow ci làmb fu mu toll nii ma lay bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee ko sax. waaw Lamine maa ngi lay nuyu di nangu di nuyu aussi internetu Lutte TV yëpp di nuyu Sénégal yëpp aussi mais di nuyu aussi complexe Al Mahdi bi nga xam ne tey jii aussi fii nga ma fekk ñu fiy defee émission bi di complexe boo xam ne vraiment mucc na ayib xam nga lu sell vraiment lu neex lañ fiy jaay. ah macha allah clientèle bi nga xam ne tamit clientèle bu responsable ñoom ñoo koy fréquenté di nuyu gérant bi ak personnel bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di nuyu ki nga xam ne mooy bay Mass indi ma ak suma doomu ndey suma xarit suma genn wàll Abdou Diouf maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tout le personnel du si bi nga xam ne tey jii fa lay liggéey en commençant par son DG Bopp di nuyu Zal Cyril Bacheli TPS ak suma collègue de travail yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñëpp baabu njaay Ibou Koundam mais aussi di nuyu ki nga xam ne mooy Idi njaay bu baax a baax ak Bamba bu Dage Assane ak Ousseynou cheikhu yàlla yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy gérer chap chap di transport logistique bu am solo boobu en fait di nuyu Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn. Hmm. ok loolu am na solo tey damaa ñëw fekk la nga teen sa bopp sol t-shirt bu noir bi ni ci pauvre du nelaw. loolu slogan wu kan waaw boobu du nelaw slogan wu sama benn jigéen bu ñuy wax Caba Kase la euh, Baye Capri ba borom Somas Couture bon donc voilà concept la bu mu génnee slogan pauvre du nelaw pour waxee ne rek ne pauvre warul nelaw cela veut dire que pauvre bi warul yaacaaral yow bu nit ñi nelaw ba biddanti waroo nelaw ba biddanti li la war a rek mooy teel a jóg ñafe pour xam nga si sa di pour sa dignité ñafe pour sa ngor mais lépp aussi ci dëgg ak lu neex yàlla suñu borom kese parce que nit moom lépp lay ut si àddina rek war nga ko mën a ut ci ngor wut ko si fulla ci fayda ut ko si si dignité donc loolu tax aussi moom mu jóg génne slogan pauvre du nelaw donc mu nekk slogan boo xam ne vraiment ñu ngi ñaan yàlla xam mu jëm ci kanam. di nuyu aussi grand taf bu mun layet ak personnel bu mun layet bi yëpp. sa sa nit moo ko moom mais terewul wax ji dafa mel ni. egg na la fu sori maanaam maanaam maanaam slogan bi convaincre effectivement non seulement suma nit moo ko moom mais slogan bi moom moom a convaincre parce que tey pauvre du nelaw li mu ëmb dafa bari parce que tey jii bul ko gisee ne rek pauvre bi warul tëdd gëmm bët non non nelaw bi dafa am feneen fu mu nekk moo que ne tey bu ñàkk nekkee ci yow am na loo xam ne waru la waroo nekk koo xam ne tey da nga yaafus waroo nekk koo xam ne da nga tayal waroo nekk koo xam ne tey jii kër gi fu mu nekk ku fa ñëw fekk la fa ku ku dem bàyyi la fa da nga war a nekk koo xamante ñafe moo war a nekk sa life ñafe pour lan taxawu sa bopp mais ñafe aussi pour taxaw këpp ka nga xamante ji yaakaar na la ndax àdduna moom si ñafe rek lay sottee ci kantu yàlla. Uh-huh. macha allah loolu am na solo mel ni loolu benn parenthèse la woon rek boo xamante ne foog ñu wax ci santan lamb la ñuy waxtaanee fi mu toll nii gis nañ xale yi ñu ëpp lu ñuy bëre gis nañ mag ñi li ñu doon def arène ba. loolu la xale yi commencé di def ñu commencé ko ci combat soq ak franc bi yaakaar naa ne seetaan nga ko avant le combat signature bi ni nga xamante ne noonu lañ ko doon tàngale jours yi ni nga xamante ne noonu lañ dugg see ci stade bi waaye balaa ma ñëw ci combat bi mais ni ñu feesale stade bi xale yi fi ñu toll ci làmb nii nan nga ko gisee surtout franc ak soq keroog ni nga ne moom lañ def arène nationale. waaw loolu rafet na mais en permettre tuuti rek balaa may ñëw ci question bi ma am benn appel bu may lancé par rapport a nos autorités politiques. parce que tamit réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk que ça soit le politique sportif bi ak keneen ak keneen ku ci nekk dafa am pàcc boo yëngatoo tey aussi gis nañ depuis un certain temps dëkk bi am benn mouvement bi nga xam ne moom moo fi nekk vraiment yëngatu yëngatu boo xam ne doy na ba ay doomu aadama di ci dee te lép li ko waral mooy ut nguur je pense que ne tamit ut nguur boobu mën nañ ko def si apaisement mën nañ ko def si jàmm mën nañ ko def si salaam mu bañ a am benn agressivité physique wala verbale mais di salu saluer aussi attitude ki nga xam ne doon na wax ne dina marche pour le vingt neuf donc la marche a pesé lourd par rapport au Sénégal inquiétude bi bari donc je pense que comme moom ni mu ko waxee bàyyi naa marché bi teg ko suuf parce que déglu naa population bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo may jàppale ñoom bu ma leen di déglu tamit war naa war nañ ma déglu. man it war naa leen a déglu mu ne déglu naa leen ba nga xam ne tey marché bi jël naa ko teg si suuf ndax conséquences néfastes yi nga xam ne moom la nar jur par rapport ak tabaski bi ñu jëm par rapport ak leneen ak leneen donc mooy saluer attitude boobu c'est attitude bu responsable la di ko encourager aussi mais di wax aussi non gouvernant et non gouverné que ne ñoom ñëpp war ñu dem à l'apaisement gérer dëkk bi ci kaw maturité parce que tey bu ñu wax un Sénégal émergent Sénégal émergent mënul am ci kaw agressivité que ça soit agressivité verbale ou physique Sénégal jàmm ak salaam la xam moom lañ ko tabaxee ci Léopold Sédar Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ba fi ñu agsi tey bu ñu fàtte ne tamit sëñ Touba fii la tëddee. maam li maamu laay ngi fii si suñu wet fi ñuy waxtaane ma ak yow alaaji Malick fii la tëdd Bukunta Njaasaan fii la tëdd ñoo ñu nekk ay nit yu teraanga ay nit yu euh, jàmm ak salaam ay nit valeur ay nit ñoo xam ne dari àdduna ñoru leen ñu tabax Sénégal ba mu toll fii je pense que ne ñun lu ñu war mooy ñu am benn continuité ci Sénégal bu positif boobu Sénégal bi nga xam ne diine rek moom moo ko ñor lislaam moo ko ñor jàmm ak salaam rek moom moo ko ñor ak religion confondue yi fii nekk yëpp parce que même bu jee le christianisme tamit jàmm ak salaam la ñuy véhiculer saa su nekk donc daal suñu politique yi nañu seetaat seen bopp bu baax a baax am un retenu te xam ne Sénégal buñ ko yàqee ñun la yaaxul kuy ut nguur ut ko si jàmm ak salaam mais ku yor nguur tamit yor ko si jàmm ak salaam boo jiite ak njaboot boo bëggee njaboot gi dox si dëgg da leen di jiite ci kaw dëgg. loolu rek laay jeexale par rapport ak. pour jàmmi réew mi ci responsabilité ñan la nekk est-ce que ci responsabilité politiciens yi rek la ne jàmmi réew bi nekkul ci responsabilité politiciens yëpp dafa nekk ci ñëpp. xam ma responsabilité responsabilité bu général la mais tey aussi comme liñ ciy tudde politique dafa bëri politique yi tey ñoom ñoo yor kàddu réew mi parce que on parle de de gouvernance tey jii bu ñuy wax dañuy wax président de la république kii di président de la république wax politique xam nga parce que ñoom ñëpp ku ci ne am na benn parti politique bu boo nekk bu weesoo loolu aussi tamit suñu kilifa diine yi ñu ngi ci ku ne xam ne tey Sénégal boo amee apaisement c'est parce que kilifa diine yi ñoo ko ŋànk ñoom la nit ñi di déglu di leen jox nopp ba nga xam ne lu yëngu yëngu am bu kilifa yi diine waxee rek apaisement am donc ma bëgg rek ñi jiite réew mi tamit ñi ko fi doon def démb ak barke démb di déglu kilifa diine yi bu baax a baax bu dëkk bi yëngoo ñu continuer di déglu kilifi diine yi. ndax bu ñu leen dégloo du ñu juum mais bu ñu dem ak seen bëgg-bëgg ba nga xam ne dañuy toll foo xam ne dañuy wax ne ñun daal kilifa yi li ñuy wax duñ leen déglu parce que du loolu moom moo war a nekk. am réew kenn du ko gérer ci rancune. parce que la rancune yàq rek lay indi. que sa soit yow mi jiite wala ñi nga jiite dëkk dina toll foo xam ne dañuy ootante ñun ñëpp waxtaan bu dee ne mbëggeel gi ñuy wax ci dëgg bi dëgg la mbëggeel bi ñuy wax ci Sénégal dëgg la. dara lu koy taal waruñ ko oote waruñ ko doxe waruñ ko waxee ku jiite réew mi jiite ko si jàmm ak salaam mais tamit je pense que ne tamit boo koy jiitee li nga war a ñaan mooy bu dee ëllëg dinaa génn ci li may jiite di ko fi bàyyi war naa ko fi bàyyi si jàmm ak salaam bàyyi ko ci mbaax ba ki nga xam ne day ñëw bu ñëwee tamit fekk fi mbaax mën na continuer baax boobu noonu donc di conscientiser aussi la jeunesse jeunesse su Sénégal c'est une jeunesse forte bu may wax une jeunesse forte mooy que ne tey jeunesse la boo xam ne mantal bu fort la yor jeunesse la boo xam ne tey jii kenn mënatul tax ñu nelaw donc ci biir loolu tamit il faut que cette jeunesse là soit consciente d'une chose mooy que ne tey ñoom bu ñu taalee réew mi bu ñu ko yàqee ëllëg bu ñu ko yoree pour ñu defaraat ko day jafe donc lépp luy taal réew mi wara di ko yàq nañ ko moytu ki fi nekk ay carte ñoo ko faloon te gëm naa ne incha allahu rabbi bu waree folleeku ay carte ñoo koy folli donc kenn ku ci nekk ca wàll wa nga nekk sensibiliser leen waxal ak ñoom xama ci kaw jàmm ak salaam bu yàlla defee ñu dem 2024 incha allah ki nga xam ne mu yoxe ci nguur gi bu ko bi dëkk bi réew mi joxe bopp dinañ ko sànnil ay carte mu gagné dëkk bi si jàmm ak salaam et que la vie continue en tout cas yàlla moo yoon nguur te moo koy jox ku ko neex mais ñoom ñëpp nañ jiital seeni xel te xam ne Sénégal jàmm rek moo fi moo fi xel. ñi xamante ni ñoo yor suñuy kaaraange tamit gannaaw yàlla suñu borom moom ñoom tamit ban ban ban ban taxawaay la ñu war a am ci kanamu population bi parce que day dem ba benn instant ñoom ak ak ak civil yi demee ne seen diggante ñoom ban taxawaay lañ am lañ war am. waaw foofu tamit dam fa sax war a ñëw parce que tamit euh, non forces de sécurité chapeau à eux mais di leen gën a ñaaxaat. di leen gën a conscientiser parce que tamit ñoom bu nekkee des force de sécurité di jaay seeni nelaw ngir ñun c'est pour protéger la population mais c'est pas pour tirer sur la population en fait que tey bu ñu demee ba force de l'ordre bi nga xam ne moom moo war a aar ki nga xam ne mooy civil bi di jël grenade wala di jël barreel di ko jëmale ci moom war nañoo tiit on doit poser la question ban force de sécurité la ñu amati donc je pense que ne ci biir loolu yëpp ñoom war nañu mën a toogaat tamit parce que je pense ils ont prêté serment pour défendre la population défendre la population nag et tirer des balles sur la population c'est diamétralement opposé et je pense de par leur conscience bu ñu toogee defaat une prise de conscience war nañu xam ne ñun même bu dee dañ ñoo sant du lépp luñ ñu sant dañ ko war a def si kaw mbokkam lay tiire moo xam jarbaatam la moo xam rakkam la moo xam doomam la donc lu mu ci manti doon war nañ mën a jiital seen xel bu ñu génnee ci mbedd mi que ça soit manifestation lu mu mën a doon ñu jëm ko encadrer ci ni mu gën a rafete même bu dee dañ wax ne dem leen ngeen tere manifestation bi man ngeen ko tere mais bal du jóg dara du jóg ki nga xam ne tey da nga war a indi sécurité waroo ñëw tey ji tamit ci biir ñi xam ne yow yaa leen di sécuriser di indi violence ci seen biir parce que sénégalais ku ne xam na ne bañkat la lu mu néew néew doole boo ko bëggee teg loo xam ne ni du dëgg mu jaay la ba kenam et depuis quelque temps c'est ce qui est en train de se passer c'est déplorable on n'a jamais connu un Sénégal comme ça depuis un certain temps les jeunes ñoom hésité tuñu pour violenter que ça soit ci kaw kaddu gi xam nga que ça soit verbal ou physique du ñu hésité loolu lan moo tax te Sénégal bu njëkkoon boo waxee ñu ne ah teraanga moo fa am jàmm ak moo fa am donc nañu seetaat suñu bopp lan moo indi tey jii que le sénégalais bi nga xam ne boo xoon violence sax mu dummóoyu dema dem ba tey jii nga koy gis si violence nañu xoolaat li indi loolu ñu jéem a raxas loolu te tegaat Sénégal fi mu teg woon démb ak barke démb te xam ne loolu mooy suñu jàmm amuñu doole. amuñu kantan amuñu recherche mais am nañ jàmm bi nga xam ne moom la àdduna yëpp di wër yàlla defal ñu ko kon jàmm jooju buñ ko bafoué. macha allah am na solo kàddu yi am na solo te yaakaar naa ne war nañ ci mën a def jàngat bu bëree bëree bëree bëri mais sama question sànq rek ci xale yi nii nga xamante ni moom la ñuy def arène bi pour le moment ba ci combat franc ak soq bi niñ ko jaayee loolu tamit nan nga ko gisee ci fi làmb fi mu toll nii di commencé dem ci loxo xale. waaw quelque chose de très important parce que doon gis làmb bu njëkkoon ba mel benn mobilisation bi buy am rek. si mbër yu mag a mag yi nga koy gis moom benn phénomène bu bees boo xam ne génn léegi avec les jeunes lutteurs ñi nga xam ne tey jii c'est des étoiles montantes vraiment nekk ñoo xam ne tey ñu ngi sensibiliser di feesal li nga xam ne tey jii moom mooy euh, arène national man duma ma la wax dëgg ah combat choc euh, sox ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, franc xamoon naa ne mobilisation dina am je le sais parce que ñaari mbër la ñoo xam ne am nañu ginnaaw. mais mobilisation bi ma gis keroog j'étais trop surpris loolu des fois si yenn combat yu mag yi nga koy gis te du ñëpp parce am na mbër yu mag yoo xam ne il représente rien du tout est bi donc loolu nekk na loo xam ne lu am solo la war nañ ko gën a mën a encadrer tamit ba nga xam ne vraiment jeune espoir yi vraiment mobilisation bi ñuy def rafet na mais ñu encadrer leen ci biir loolu gën leen ci pousser ba nga xam ne tey kenn ku ci ñëwati tamit arène nationale dina nekk loo xam ne dina jekk parce que bi passé franc ak sox vraiment jekkoon na trop man j'étais tellement xam nga content et tamit j'étais vraiment ému de par de par que j'ai vu en fait nga gis Pikine yëpp génn parcelles yëpp génn mais après njeexital bi lan la lépp si sportivité sox daanu nangu ne daanu na franc daan ko mais ku ci nekk jox sa morom cër bi mu moom loolu mooy sport gisoo tey ku dindi chaise sànni wala yàq dara te mënoon nañ ko en fait mais defuñu ko mais lépp dañ ko def si discipline donc mooy oo tamit su ma mbokku mbër yëpp mais rawatina suñu supporters yi kenn ne ñoom mbër mi bu leen owee saat owu leen fa pour ñu dam ay seize owu leen fa pour ñu yàq def leen foo tout pour ñu supporter ci kaw jàmm ak salaam donc damm chaise yeeg yooyu rafetulul image yu bi milliards yi ciy dem bari na ba nga xam ne yàqu ko tamit waruñu. dafa mel ni keroog jàngat tax awlu làmb war nañ ko parce que dañ doon wax Ama Baldé ak Modou te combat bi poulain Ama ak poulain Modou Lo ñoo doon bëre. Modou mu ngi woon ci stade bi Ama woon ci stade bi mel ni kon genre communication bi ñu doon def di ragaloo nit ñi combat bi ci biir arène ba loolu dafa mel ni weddi na ko. Pabès loolu weddina ko parce que ça a été avant-première par rapport a combat ki nga xam ne mooy Modou ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, Ama Baldé et lépp day dem rek ci toujours lépp day yàgg naa di ko wax ci sa émission lépp day tàmbalee toujours ci communication athlètes yi parce que communication athlètes yi des fois ñoo mën a exciter supporters yi ba yóbbu leen ci benn niveau boo xamee doo comprendre parce que certains de nos supporters son fanatiques ils par leur amour de leur leader ba nga xam ne des fois communication bu mu mettee trop de parler face à face mën na leen exciter ñoom mais communication face à face mën na neex ñu jaay combat bi mais lépp ci kaw respect ak dal respect bi ak dal boobu nag mooy dem a dem ba dee gunge sax supporters yi ba ci biir stade bi ak sox ak euh, franc dama leen a déglu si seen communication vraiment ñu jaay seen combat ku ci nekk wane sa bëgg-bëgg ci bës bi mais chapeau à eux yar ak teggin bi ma gis si ñoom dal bi ma gis si ñoom njàmbaar bi ma gis si ñoom loolu moo répercuté wu ci combat bi moo répercuté aussi bi combat bi jeexee ba nga xam ne jàmm ak salaam rek moom moo ci am donc maa ngi leen di encouragé ñoom ñaar ñëpp di félicité sox aussi c'est un grand champion sport noonu la làmb comme ni ko mag ñuy waxee ñaari ndam ñooy ñëw mooy benn mooy génn donc Franc la yàlla may ndam yàlla na ko ndam li jik mais sox aussi donc na defarwaat rek ñëwaat c'est un grand champion il a l'avenir devant lui. ok communication Sokh tamit comme ni nga ko waxee rek gis nañ avant le combat mu ni képp ku nga xamante ne man maa la indi ci stade bi bu la wala mu xool la bët bu la neexul sax soo ko wala nga sànni ko dara mën na ko baal dafa mel communication boobu tamit am na solo trop te li li tax violence amul lool tamit ci la. effectivement mooy li ma la wax moo dama ne la communication athlète yi def si am njëriñ te loolu yëpp day confirmer Sokh Baye Fall bi mu wax ne moom la doon. parce que tamit Baye Fall philosophie la kii di Baye Fall di jàmbaar kii di Baye Fall wax ku nangoo liggéey mais kii di Baye Fall aussi wax kuy cultiver jàmm ak salaam donc Baye Fall boobu nga xam moom lay dund moom lay woote loolu moom moo nekk ci moom te communication boobu tamit moom la jël indi ko ci supporters yi supporters yi aussi nekk ñu ko déggal ba nga xam ne bi mu ñàkkee dem nañ ci kaw daal donc vraiment chapeau à ki nga xam ne moom mooy Sokh mais chapeau aussi à ses supporters mais chapeau aussi aux Pikinois mm. parce que keroog xam nga wane nañ ne Pikine c'est un grand peuple. ok macha allah loolu am na solo léegi euh, Franc am ndam ci kawam coow li bari na nag ñii ñu ngi koy proposer euh, ay moromam amateurs yi ñu ngi tudd Diène Kaïré ñu di tudd doomu Dangu ñu di tudd Moussa Ndoye ñu di tudd ñeneen ak ñeneen mais moom Lac de Guiers numéro 2 la la baaram. Lac de Guiers numéro 2 nag nee na mu est-ce que moment bii dëgg yàlla euh, Lac de Guiers avec tout ce que qu'il a ci biir làmb fi mu jaar yëpp combat ak Franc war na mën a nekk yi mais du moment bi ci kanam mais tamit Franc il n'a pas tort bu wonee carrément que ne man. tey jii dama am yéene pour bëre ak Lac de donc tey ñëpp xam na ne Franc tey jii ci yoon bi mu nekk bu ko wàccul mën na bëre ak ku nekk donc dañ koy ñaanal yàlla rek vraiment yàlla bu ko dara gàllankoor mais tout simplement que ne pour diir que comme combat mag Lac de Guiers moment bi du combat bu war a taxaw. Mm. te je sais que même promoteur yi duñ ko taxawal parce que c'est pas d'actualité Franc tey jii am na ñoo xam ne war na bëre ak ñoom nga xam ne dina ëpp coow xam nga ci combat yu gën a ñor ko combat ak Lac de Guiers combat mag Lac de Guiers ñoragul mais maa ngi koy ñaanal yàlla tamit mu ñor. Hmm. léegi su ma la waxee Franc Moussa Ndoye Franc Diène Kaïré Franc doomu dàngu yow nga nekk promoteur bi ban ngay tax. waaw Franc Franc Moussa Ndoye Moussa Ndoye man na man na may chance Franc combat la boo xam ne vraiment combat bu logique la. war na mën a nekk parce que Moussa Ndoye mu ngi jóge si Thiès Sa donc xam jële fa défaite il a besoin de reculer pour mieux sauter donc je pense reculade bu gën mu jël franc moment bi ci ñi fi nekk gisuma ko c'est un combat choc lu mën a nekk la léegi nag reste à savoir est-ce que moom dina ko bëgg parce que ñun mbër yi moom ku ne xam ne ne en fait voilà suñu calcul ci ay yi dafa bëri mais combat la boo xam bu logique la. comme Franc Forza. Franc Forza waaw combat bu war a mën a nekk. combat bu war a mën a nekk la combat bu neex la mais même si j'avais un conseil à donner à Franc danaa fi bàyyi Forza. waaw su ma amoon conseil ba ma koy jox dinaa fi bàyyi Forza Forza c'est un grand champion te neexul ay mbir xëy na nag nit ku nekk ak destinéem ku ne ku ci ne ak yoon bi la yàlla jagleel ci àddina mais tey Franc fi mu toll euh, ki nga xam ne ni moom mooy suma frère Forza wax dëgg yàlla fi ñuy xëccoo roi des arènes bi taxaw foofu la waroon taxaw te mbër la moo xam ne neexul ay mbir xam naa donc bu ma sañoon daal franc moom dinaa ko wax bàyyi fi forta ba ci kanam mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sagoo muy le ministre Matar moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam na nañu ne saa yu mbéyeg lu mu fegoo ak Momo Ngom lamb jooju faw mu wàcc faw mu alaa daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye nduur ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de njal gi ku ci mel ni Ismaïla seen responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaaw Sine ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa club Boucar Ndour moo leen di woo di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 millions de francs fa